ayo di di xeesal kii jóg noonu mu ne kii jóg noonu ndax nga xeesal you know you see you cannot you ko nëbal e buka xeesal e buka maabondoo joolaa bu dox su la gisee ako joolaa toolewo naa ye je ak soose yi ñu dee wax sasa booro a ah, ni man din kon mi fo sasa booro musu koyo foogee ne yow sasa booro la ni ay koy temu sasa ya mira koy ti o oh, joolaa bi ko ne de <laughs> asekegbebu ni gbajà lulu amẹ jọla ta sunyẹ amẹ dabari ibi mẹri tuba jọla suko amẹ daba mẹ dem na aljana musa de wẹrẹ alulu mọ mọyi tuba ni lamọ dọ yẹ lẹji ko ale dẹgu jọla english sa deni ẹ alimẹto ẹ jit mi mẹ lamu waayi so léegi mu ne ako saa ɗo fogene ɗan ma anna ɗo homunana ako président ko niya mira koye ka neneno l'état neneno yesan yalla lom defat soko wee ceeñ ñeɓɓenoone dañ ko ceeñ ko ay waale ala e min deɗa ni lefta falinay ka lone ko yitela falin ɗange watti heesal ko sukoɗete biko niti dañ ɗe ɓay hel ako ye jalli ye je fana heesal ka to molke hakkilo tule wa jiga bone janko gis mu ngi hees ɓe pare fi mum ko wat amande hesal katla a ko muso min ye lon ko yaaje jang ay e janli aɗo a hesalo keɗa lon ko ay hesalole ma leje sumalaki sema nobla a ko ni nga je ko nge kanule amma fo ande ɗonen ko de hesal te hamna ko hamgen ko a ko ɗulanɗoɓe je hesalo buka futa woto aɗum Ali lon ne deɗo hayre kanan mi fof wona mabugala a ko nya da ñaɗañi wonaten nge ɓe ko ko musa hesal aɗum jee inenete hesalo mala woto nan nan won jeri hi kon a ko wo hesalo woto a nafa le pm mu ngi xees ako ñada bébé koy ring boobu du xees loolu tax doo mun a am doom bu xees ako wóorlu laa bu ga koy wala dina ite ci koy soxandoo la lan mooy njëriñ bi ako mu ne maa nafaati I feel sorry for you. ako Allah ko kamba dama na yërëm trop tuub leen ngeen delloo si yàlla ako ali tuubi ali sey alakan mun na laaj Lord Mayor or Uncle Obi Konate. nse Lord Mayor wala Uncle Obi Konate ñinin kaano. from 2015. kabo ñaata dang hay heesal ñoo see Banjul fii amut. ah sunkutool mi ne heesaloo kee jëlle futu ko aman soto. nañ Lord Mayor kaay. Lord Mayor le. bi ko Banjul dëgg la wama ban doomi kan ku heesal moom lañ takk. ku fi heesal kuñ fi takka fii. gis loolu mais what ne dinaa leen ko wax. because I want the best for you. ngir lu baax laa leen bugal. ndeysaan bu ñu nekkee saay saay. ah kon ndeysaan kabrim de saay saay. yaa mu ngi start nag. <laughs> ko waa kool start ah. xam nga time boobu in the 80s. waatoo la 1970s ka taa kan. ku xeesa rek xam na lu ñu la gisee. ak ko moom mooy xeesaloo ke eh, doole la. ñun temps boobu ñu ko ooye alta wo waatu dool ka faye alta ha ah, boy yow ana hammande kinga to bani alta la iba yoge ka foye boy ite kamin nomata ma lon ko alta lem ko de kan ndongo bañu hamna lan moy alta bañu nongol wol ya lon ne munem altati ha ah, boy loolu la ah. xana gis loo mu ngay xeesal foye maaje wole abe xeesaloo la the origin of xeesal itself is is dishonorable mu ne xeesal cosaanam fam fàqee ko daal nekkul loo lu baax la You all know Hesal from started. ñëpp xam ngeen Hesal fi ali alo na da sita dami. So then dama Apollo hotel go nga gis chemical Indians. Ako ni da no wado Apollo hotel ka chemical Indian ol taraje. Oh mass club wala mass club jan. <laughs> xam nga lima wa. ali alo nen kam mi. Lan start in Hesal fi. Wolle ya dati ka Hesalo dundi nan jan. Deñu ngeen def ko façon. Saying aliya ke kutimi yalon ko ngañarango. Cervical cancer. ako e ka sawabel kan sammingi ka foten nda hanngande heesal bokana si